façon provocation bu ne essayé nañ bu c'est mooy malheureux candidat de Benno Bokk Et que je connais très bien parce qu'il était mon collègue aux impôts on se connaît très bien il sait qui je suis je sais qui il est on se connaît très bien Mouhamed Lamine Diaité romb buntu këram mu jël ay nit ñu taxaw ci kaw gi di sànni xeer moo tax ko wax ko parce que nous nous avons les moyens de régler ces questions là partout où on est passé, on l'a réglé. Il faut que Benno Bok Yakar yem. Ils sont minoritaires sociologiquement. Ils faire que des militants de l'opposition, de l'intercoalition Yebi Wallou. fait Fetal tirer 5 ans. Devenant Ben Fan Langote Walanyar et ils l'ont libéré. Ça, c'est l'expression la, la plus aboutie de l'injustice sous le régime de Macky Sall. Maintenant, je vous félicite.

ñu taxaw foofu nar ñu dem attaqué sama kër dëgg naa toj nañ foofu presque vitres léegi nag am na koo xamante ne bokk na ci délégation te muy sama rakk muy benn lieutenant bu Sonko sama rakk ju baax la moom moo ma woo mu ne ma grand eh, am na lu xew fii ma ne ko lan la mu ne ma yakaar naa yënga ko ma ne ko daa waaw mu ne ma dañu xamuloon ne sa kër la parce que man ak yow bu ñu yëggoo am mu ne dafa am bi ñuy romb ñuy sandi ay xeer seen cortège loolu moo tax gars yi tontu loolu nag ma ne ko d'accorduma ci c'est pas vrai parce que bi ñuy romb fekkuñu kenn kër ko ay xale ak sama yaay ak ay xale yu jigéen ñoo nekk ci kër gi ñoo nekk ñu sànni xeer militaires yëpp ñu ngi bokkal am na ñu dem côté so yi euh,

violence ñi violence la mu xam violence kessé te pourtant que pourtant ñun nous commencer campagne bi ba légui ñu ngi pourtant pourtant ñun du commencer campagne bi ba légui ñu ngi naan violence violence ak peine.